alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala nabi rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabihina lahum bi ihsaani ila yawmi din amma baxdu ayyuhal ixwa mbokk yi ginnaaw ajjuma ji weesu am na loo xam ne moom lañ waxtaane woon mooy jikko ak am solo gi nga xam ne am na ko solo ci lislaam kon war na nañoo wone lenn ci jikko yi nga xam ne moo moom moo moo moom moom moom lañ doon waxta moom lañ bëgg waxtaane muy jikko yu tedd yi bokk na ci bokk na ci jikko yi ndax xam xam waxoon nañ ne doomu aadama day bu fekkee ne bëgg naa bëgg naa nekk doomu aadama ju mat mooy ki nga xam ne ay jikkoom dafa rafet a mat mooy tax mu nekk doomu aadama ju mat waaye bu ay jikkoom rek day mel ni moom mat mat ga nga xam ne moo waroon nekk ci moom xaw naa matadi mu mel ni que nag ni ko waxee woon ci ajuma ji weesu ne Serigne Touba dañoo misaaloon ne gëm yàlla day mi ngi mel ni mooy ruu ci doomu aadama jul yàlla yi nga xam ne moom lay def mu ngi mel ni mooy jëmm mooy jëmmi. moo nekk ci mooy mooy mooy yanu ruugoogee nga xam ne moo mooy jàmm mooy gëm yàlla mu mel ni nag jikko niñ ko waxee woon mooy mbubb mi nga xam ne moom la war a sol waaje ko ngir dem ci do ngir ngir ngir mën a rafet mën a mel ne mu war a mel kon mu mel ni jikko kon doon na loo xam ne lu munta ñàkk la doon na loo xam ne lu am solo la waaye dafa mel ni nag suñ borom bi mu nuy xamal jullit wala buñ bëggee xam jullit dëgg-dëgg mooy jullit mooy ki nga xam ne day wax bu taxawee li muy war a représenté ci boppam mooy day wane ne mankat kat ku xam li nga xam ne moom la ma noom laa war lu ma war laa te man koo taxawee ndax xam nañ ne suñ borom du sant doomu aadama mukk loo loo xam ne ay ciram mën na koo taxawee xelam itam man koo xam kon mu mel ni jullit bu taxawee li muy wane ci boppam day wane ne man kat maa ngi nii waaye ku mën a taxawee ku xam li ma war laa la te man koo taxawee kon loolu mooy ak jullit. bu ko defee nag mbub mi nga xam ne moom la moom la jullit war a sol te mu doon mbub moo xam ne ay couleur yu bari ñoo ko ñoo ko ñoo ko composé waaye teewut li couleur yi bari bari bari taxut mu doon benn doonut loo xam ne dafa xàññaaral ba ëpp ba tax muy ñaaw wala mu mel noo xam ne wata nu mu mel la jikko mooy li nga xam ne nag mooy couleur yi nga xam ne mooy composé mbub mi nga xam ne moom la jullit war a sol jikko yooyee nag bokk na ca li ñuy wax nit ki dafa war a nekk koo xam ne ku wóor la ku wóor wóor joojee nag ñu ko waxee day mel ni fi ñu koy gën a jëmale ñun dañuy jàpp ne rek mooy ñu dénk la dara waxtu woo jot nga delloo ko na nga ko war a delloo waaye loolu teg tekkiwut kese ak wóor lii tekki ak wóor ndax loolu sa digganteeg doomu aadama yi la bu la joxee dara nga delloo ko ko ci waxtu yu nga ko war a delloo li muy tekki mooy wóor nga ci diggante sa digganteeg doomu aadama yi waaye sa digganteeg yàlla nag dafa am loo xam ne moom itam mooy tekki sa wóor sa digganteeg moom lii gën a tekki nag sa wóor sa digganteeg mooy mooy responsabilité yi nga xam ne moom la suñ borom tekk nga fës yéene ba taxawee ci ni ni nga ci xam ni nga xam ne moom nga ci war a taxawee kon loolu xam nañ ne yooyu muy jikko doomu aadama mënu koo taxawee lu dul ne dafa ànd ak xelam dëgg-dëgg ndax jikko mooy li nga xam ne xel moo koy def kon dafa mel ni bu jik doomu adama dee taxawe jikko yi rafet yi nga xam ne moom la war a taxawee day wane ne moom am xelam mi ngi koy bàyyi xel ndax xam na ne suñ borom jox na ko loo xam ne joxu ko keneen ku dul moom kon nag war naa wan war naa war njukkal suñ borom ci wax lu muy def lu ne mu wone ca li nga xam ne mooy jikko mooy xel mi nga xam ne moom la ko defal loola nag kon mu mel ni ji maanaam sa wóor si diggante doomu aadama yi loolu li muy tekki mooy ne nga sa diggante doomu yi waaye nag responsabilité yi nga ne moom da nga koo gàddu dangay xam ne responsabilité la boo xam ne sa diggante moom matal ko mooy tekki sa sa wóor sa digganteeg sa suñ borom bokk na ci responsabilité yi do kenn ku ne sa doom yow yaa yaa yor yaa yaa yaa yor responsabilité am kon mu mel ni taxawee sa doom ni nga xam ne moom nga ci war a taxawe sa soxna itam nga taxaw ci ni nga war a taxawee say mbokk yi yi nga xam ne ñoom nga séqal itam nga doxalee rek ñoom ni nga war a doxale loolu mooy responsabilité yoo xam ne sa digganteeg yàlla la te bu ëllëgee dala koy laaj mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la mu mel ni nag suñ borom dañuy won mi ngi nuy won ne googu nag du ne ab réyaay ko mën a yor ré du ne diis moo ko mën a yor waaye li ko mën a yor mooy xel muy doomu adama di jëfandikoo mooy tax mu mën a mu wóor ci digganteem ak doomu aadama yi mën a wóor ci digganteeg ak ak suñ borom ku mun ku jëfandikoo wut sa xel doo mën a jëfandiku doo mën a doo mën a muñ ni nga war a muñi kon te comme suñ borom jox nañu xel nag war nañ koo won te ñun la la ko jox war nañu waxtu wu ne ñu di ko jukkal ci teraanga jooju nga xam ne moom la ñu defal jukkal nag mooy jëfandikoo xel moomee ci dañ ko war a jëfandikoo ñu ko defee rek suñ borom danañu taxawu dana nu danañu jàppale dana dana ñu yóbbu foo xam ne itam fu kawe suñ jot la ba muñ muñ nag xam nañ ne doomu adama bu nekk faaw nga am loo xam ne lu mer loo la waaye nag bu la amee lu la merloo la lay lay tax nga war a mën a tege fi nga war a tege mooy loo mer-mer itam nga delloo si waat sam xel jëfandikoo sam xel xam ne am na loo xam ne doomu aadama jox suñ borom jox na la ko te jox ko yeneen mbindeef yi xam nañ ne. xar yéeg bay yéeg yeneen yi ci des yëpp koo ci merloo moom day day daal di song wala mu jëfandikoo wala mu wala mu jéem laa def loo xam wala mu jéem laa waaye nag comme doomu aadama nga yow te suñ borom jox na la loo xam ne joxu ko mbindeef yooyee yow teraanga joojee mu la defal war nga waxtu wu nekk nga di ko jëfandikoo mooy lu ma mer mer itam dana ànd ak sama sago danaa xam fi may teg sama tànk danaa xam li may def ndax bëgguñ nga def loo xam ne da ëllëg mer maa ko taxoon nga def ko nga di ko rëccuwaat kon yàlla nañu suñ borom taxawul boppam yal nañu su borom sàmmal boppam allahuma ahdina fi man hadayta wa tawallayna fi man tawallayta wakfina sharra ma qadayta innaka taqdi wala yuqda alayka ya allahu ya rahmanu ya rahimu ya sa jalali wal ikrami ya karimu inna nasaluka aljannata bila amalin amilnahu wa naudu bika min annaari bila dambin taraknahu wa nasaluka bi sitrika alladi la tusiluhu riya wala tuxriquhu rima an tasturana fi daarayni wa an taxfadana fihima bi jaahi sayidina muhammadin sal allahu taala alayhi wa sallam wa xadimihi radiallahu taala anhu wa arda allahuma innana salamna anfusana zulman kasira wala yaxfiru sunuba illa anta faxfir lana maxfirata min indika warxamna innaka anta alxafuru rahim rabbana innana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin